dal leen ak jàmm coronavirus bi duggaan na groupe Futurs Médias ginnaaw journaliste record bi di Bakary Cissé mi njëkkoon a testé positif Samba Sine ñu gën ko xam ci Kouthia di ab humoriste foofee ca télévision Futurs Médias am na doomu jàngoro bi jamono ji ñuy waxe yéen nag mu ngi ci service yu ministère de la santé de l'action sociale ñu di ko saytu waaye tamit membre équipe bi di Kouthia Show di équipe bu muy liggéeyandool ñoom tamit def nañ ci ñoom ay prélèvement di xaar ci talaata ji comme ni ko ministère de la santé et de l'action sociale di defee xëy nañ joxe bilan bu jëm ci situation du jour bi ñeel coronavirus fii ci réewum Sénégal ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr xamle na ni ci bisub tey ji amal nañ mille quatre-vingt-dix-neuf tests réalisés cent neuf cas daat ci ñëwaat positif ministre bi xamle na ni am na juróom-ñeenti cas grave mu mel ni nag bile chiffre dafa yokk ndax démb ñu ngi woon ci huit cas grave rek neuf cas waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni jëlee nañ ko ci site bi di sur le terrain point sn neuvième cas grave bu tey bi du kenn ku dut Samba Sine ñu gën ko xam ci turu Kouthia te muy liggéey ca télévision bu Futurs Médias bu ñu sukkandikoo ci suñuy xibaar ba léegi nag animateur groupe Futurs Médias bi dafa amee jabet te ku nekk xam na ni jabet ak coronavirus defuñu lenn jabet bi nag waral ba El Hadj Abou Bilal comme niñ koy woowee ci koor gi daal di admis ci service de réanimation xanaa rek ñu koy ñaanal yàlla may ko wér ba mu delluwaat ci njabootam